le 26 mai 2021 si conseil des ministres dañuy valider mooy projet sur code sur l'électricité code boobu day leen mooy yëpp lu le waxati lu dem ci électricité code boobu moo saytu mu doon leen lu am importance lu mel non nan la état bi mën def lu mel non, bañ ci acteur yu nek ci énergie loolu ñun mënuñu di ko seetaan lu mu war dinañ ko def parce que tey dañuy gis énergie bi dafa nekk énergie sénégalais yëpp moom nit nag lu ñu bokk suñu bëgg si ne dañ koy defar laaj na ñu boole ñëpp ñu waxtaane ko su nga waxtaanee ku nekk wax loo si bëgg loo si nam ñoom nag yàlla ñoom la def ñooy autorité yi ñu tenir compte nit yi seen réserve ak seen xalaat su nga ko defee loolu ñu door ko yóbbu assemblée nationale suñ ko voté après su boobaa président mën na ñëw jël promulguer loi mais lu ñu dul nangu mooy def ko noonu si biir bureau rek ñëw yóbbu assemblée nationale mu am vote mécanique ñu ne léegi voté nañu code sur le lu mu leen jaral defuñu ko ñu te dañuy lancé appel jàmm la ñu bëgg dañu leen di ñaan ñu woote ñu tase nu mu gën a gaawee ñu waxtaan si anam yëpp si code sur l' électricité du ñu nee rek ñun Senelec même consommateurs sénégalais tamit bokku na si ñoom it dañ si am si un sen sen cadeau ñu waxtaan ñu ko commission boobu su ko mu ko assemblée nationale su ko voté a xam de ah li de leer tamit amna len exemple vous y ngeen temps bi ne contrat bu wax sur ay ki pétrole bu président dafa mujjee woon dem sax fexe publier waat pour que sénégalais mën gëm affaire bi leer na le dañ Il fenn yëpp lu def dafa war gestion à transparence